الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وخير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بلانيو ñoo jàng بي bi الإمام مولاي imaam أحمد جان علي سيسي وي دينا نيكتي dina njëkkati kàddu يباركل tedd ziyaare ko moolaaye Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niass xalifatul aam li saaxibil fayda ataalu llahu baqaahu yàlla na ko fi yàlla yàggal yàlla na ko yàlla guddal fanam yàlla na ko yàlla may wér sembi mi nga xam ne semb na ko muy sembi baayam yàlla may ko kàttan ak wér ba mottali ko ci anam ba gën a baax ci anam ba gën a rafet moom mi nga xam ne moo ñuy jox ndigal yeesal ñu ko ndox wax ñu ne bés bi jox nañ la ci izn itlaaq ban ñu ngi koy gërëm di koy sant lii yëpp ay ñaanam la lii yëpp ay tëbbinam la ndax bu fi sëñ aadi di genn àddina ak léegi mën na 15 ans boobu ay tout tànk leen moo ñu tette jàppale ñu soutenir ñu bañ ak si fii nii ban dëgg-dëgg lu may faral di wax rek ñun jooyun baay ndax moom mu ngi fi mooy sëñ aadi si ñun mooy bàyyi si ñun mooy awlaadi cheikh yëpp ci ñun ba tax na moom moo jooy rakk nag moo jooy xarit moo jooy taalibe moo jooy soppe muy rakkam bu mu bokk ak ndey baay muy cheikh Mahamad Hadi euh, ba tax na ñun moom ñu ngi sant yàlla ci moom duñ def lu du ñaanal ko yàlla rek moom ak rakkam yëpp dalee ko si say Seydi Mawlaay cheikh Mahamadul Mahi Ibrahim Niass mi nga xam ne bés bi moo ñu njëkk a sonju ci nañ ko taxawal bu sëñ aadi génne àddina bees ci 2005 ma tàggu ko na ko maa ngi dellu Égypte mu ne ma waaw guddi gu màgg gu barkeel googu nga xam ne sa waajur mu ngi ko doon taxawee ana foo ci toll lu tax defoo ko ren ma na ko ah def naa ko waaye si saal boo yem rek laa ko def nit ñi bëriwutoon comme nii rek mu ne ma dee ko taxaw loo sunu su rafet la sunu soosu nag continuer ko moo gën nga neenal ko boo demee ba mënoo ko sax ba ñëwee ci ñu ñu jàppale la loolu Seydi wa Mawlaaya Cheikh Mouhamed Mahi Ibrahima Niass moo ñu ko wax bon dëgg-dëgg ci tànk yooyu lañ aw heure bu ñu nekk bu ñu gisee rek fàttali ñu loolu soññu ci ba tax na dëgg-dëgg ñu ngi ñeme ci yoon bi bu baax a baax a baax waaye nag dafa jiitu nag seen waajur bés bi daf koo fonkoon lool tey jii ku nekk xam ne xat-xat am na jafe-jafe am na muy mbas mii nga xam ne wàcc na ci àddina bi jaaxal àdduna bi yëpp muy Covid 19. ñu ngi ñaan yàlla tur wi yàlla na faaru yàlla nañ ko fàtte donte wax nañ ne mooy tur bu gën a siiw ci àddina bi actuellement ci jamono jii ñu wax amul lu gën a siiw coronavirus waaye bu waxuma la coronavirus yàlla na ko fi yàlla jeexal waaye am naa yaqin ne dina jeex am naa yaqin du ma nekk di warlu wala di waat wala nangam waaye damay wax am naa yaqin ne dina jeex ndax lan fu ma ko teg. du fenn lu dul ci kaamil yi nga xam ne jàng nañ ko fi tey jàng nañ fi deux mille trois cent cinquante cinq kaamil yoo xam ne ñi ñaa ngi woote ba léegi pareegun waaye lu jot a ñëwagum ci Mamadou mii bu bind ko muy deux mille trois cent cinquante cinq kaamil yoo xam ne wàccee nañ ko ci biir Sénégal yëpp loolu waxuma ne xaj na ci Sénégal waaye xajut ci seen ëpp na Sénégal sax ben kamil rek ku nek xam na ne ëpp na Sénégal lu ci nek ci ngeenel ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moy wax ne waxuma alif lam mim harf la waaye alif harf la lam harf la mim harf la harf bu nek rek ay hasanat yu nekk ci rawati na ci bés bo xamne ci la ci la ñuy laylatul qadr ku xamul laylatul qadr ma xamal la lan moy laylatul qadr donte ñep xamne ko laylatul qadr moy lan mooy fiiha yufraxu kullu amrin hakim mooy guddi gi nga xam ne yàlla ci lay gorelee ñii safara wala ci lay tor ci lay dugal ñii safara wala ci lay génne ñii safara yàlla ci lay guddal fan nit ki wala ci lay gàttal fan nit ki lépp luy yàlla di sàkk ci ci at mi rek ci waxtu wii la koy def wala ci bés bii la koy def ku war a dee ren wala ku war a dund ren ku war a yëkkati ko ren wala ku war a wàcc ren ku wara am ren wala ku wara ñak ren ku wara tedd ren wala ku wara soufé ren loolu yépp ba ci tay ji ci lako yalla jox ci waye yalla tamit def na ci muy bëss bo xamné mo gën junnee weer junnee weer ñu koy netali moy ben ñett fukki at ak ñenti weer juróom ñett fukki at ak ñett ak ñenti weer ci lo xam gun ko jaamu yalla ci jaamu gu nangu kenn mënut a garanti ne moom mën na dund juróom benn fukki at yoo xam ne noo ko jaam juróom ñett fukki at yoo xam ne ne jaam na ko yàlla jaamu yu nangu waaye képp ku yàlla def ba nga fuglu bés bii ci ay ñaan rek mun nga def ba tombeek bés boobu ñu ngi ñaan yàlla yàlla nañ yàlla may ñu tombee bés boobu yàlla na nekk tey jii sax sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam allahuma balligh thawaaba ma qaranaaw wa nuura ma talanaaw ila ruuxi cheikhina أبي العباس يا أحمد ابن محمد التجاني الفاسي اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلوناه إلى روح شيخنا ومولانا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم يس وإلى جميع أولاده وخلفائه وتلامذته اللهم بلغ ثواب ما قرأناه ونور ما تلناه إلى روح والدنا وشيخنا شيخ محمد الهادي إبراهيم يس وإلى جميع المسلمين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 إنه كان توابا